lii mooy cosaanu Yeesu Kirist sëtu Daawuda sëtu Ibrayima Ibrayima moo jur Isaaxa Isaaxa jur Yanqooba Yanqooba jur Yuda ak i doomi baayam Yuda Fares ak Saara ci Tamar Fares Esrom mi baayu Aram Aram Aminadaab Aminadaab Nason Nason Salmon salmo jur ci rahab doom ju tudd bowaas bowaas am ak ruut obed obed jur yeese mi bàyyi buur bi daawuda daawuda moo jur suleymaan ci ki nekkoon jabari uri suleymaan jur robowaam robowaam abiya abiya asaf asaf yosafaat yosafaat yoram mi bàyyi osiyaas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 abiyud eliyakim eliyakim asor asor sadok sadok akim akim eliyud eliyud eleyasar eleyasar matan mi bàyyi yanqoba yanqoba nag moo jur yuusufa jëkkëru maryaama te ci maryaama la yeesu mi ñuy wax kirist juddoo mbooleem googu nag